le Conseil constitutionnel à ses domaines de compétence c'est une institution judiciaire pouvoir judiciaire la bokk l'Assemblée nationale a ses compétences pouvoir législatif la bokk amul dara loo xam ne am nu amu fa confrontation problème bu fa am kay mooy ne am na ay député yu bokk ci benn parti ñoom ñu éliminer seen candidat ñu am droit contester ñu am droit ñaxtu ñu am droit également euh, joxe ñoom seen argument loolu ñu nangul leen ko mais amuñu droit perturber chambouler le calendrier électorale sur des bases fallacieuses yoo xam ne di prétexte ay crise institutionnelle te crise institutionnelle amu fa assemblée nationale moo ngi fonctionner sans problème euh, conseil constitutionnel moo ngi fonctionner donc i y a pas de crise institutionnelle entre l'assemblée nationale et le conseil constitutionnel c'est des une crise politique au sein de Benno Bokk Yaakaar APR ak un problème boo xam ne mooy la candidature de Karim Wade au niveau du PDS donc loolu c'est pas le problème de l'Assemblée nationale euh, lu mu ci bëggoon yokk mooy proposition de loi constitutionnelle boobu ba bañ ko indee Assemblée nationale quatorzième législature damuy nekk quatorzième législature ba léegi ñoo ngi doog a examiner une proposition de loi parce que ñaar moo am projet de loi mooy jóge ci gouvernement proposition de loi mooy jóge ci initiative des députés initiative yëpp yu ñu fa jël ñun en tant que député déposé nañu trois propositions de loi examiner wuñ ci benn mais proposition de loi boo xam ne déposé nañ ko samedi bureau bi examiné ko samedi ñu convoqué le bureau samedi bureau bi examiné ko samedi jébbal ko président de la république président de la république joxe avis le samedi même le dimanche ñu convoqué la conférence des présidents pour mu programmer joxe ordre du jour et calendrier dimanche à 11h 11h nañu soog a jot texte bi ñun ñuy bokk conférence des présidents ñu ne ñu commission des loi dimanche à 15 heures la séance plénière bi c'est le lundi à 11 heures mooy maanaam proposition de loi ba nga xam ne engager avenir dëkk bi engager le futur de tous les sénégalais ak loo xam ne lu toll ni élection présidentielle nga bëgg ko en 48 heures loolu kenn mësu ko gis mun nañu ne battre na record Guinness en matière d'adoption d'une loi ñun nag. bu ñu yeggee commission taxawaay boobu nañ fa am parce que dañu gis ne motif yi ñu avancé c'est exposé des motifs bi du ay motif yoo xam ne mën na justifier la révision d'une constitution du motif boo xam ne mën na justifier le report d'une élection du motif boo xam ne mën na justifier la prolongation yokk mandat président de la république te dafa viole constitution bi en ses articles 27 article 30 article 31 ba pare remettre en cause la décision du conseil constitutionnel mooy décision définitive ba nga xam ne moo établir la liste définitive des candidats donc loolu mënuñu ko woon nangu moo tax ñu voté contre en commission voté également contre en séance plénière loolu mooy doon suñu objectif pour voter contre en séance plénière mais mayuñu ko puisque séance plénière ba ñu ñëwee dañu ñëw commencer poser les questions préalables loolu article 74 du règlement intérieur moo ko maye question préalable mooy loo xam ne balaa ñoo dugg ci fond wu texte bi dañuy laajte ay question yoo xam ne suñ ko résoudre maanaam texte bi kenn mënu ko examiner sur le fond loolu nañu def au niveau de l'Assemblée nationale ba ñu paree ci question préalable député Yewwi Askan Wi ne léegi nag dañuy def ay observations sur le rapport ba pare soog a dugg discussion générale parce que règlement intérieur assemblée nationale noonu la tegee procédure en séance plénière ñoom ñu bañ ñu ne duñ ñu bàyyi ñu débattre dañuy def lu ñuy woowee le vote sans débat le vote sans débat nooy mun a defee révision constitutionnelle ne da ngay def le vote sans débat ñu ne nag loolu duñ ko seetaan ñu bàyyi assemblée nationale muy salfaañe la règlement intérieur continuer di violer la constitution à travers un vote sans débat ba nga xam ne le règlement intérieur de l' assemblée nationale prévoiru ko parce que assemblée nationale kuréel la boo xam ne dañ fay waxtaan dañ fay délibérer dañ fay débattre moo tax ñu sanc assemblée nationale ñu woowee ñu les représentants du peuple tànn cinq ñoo xam ne fu ne nañu leen jëlee ci Sénégal ak sa diaspora bi indi leen fa pour ñu représenter fa la nation sénégalaise la population sénégalaise donc comme mënul ñu ne assemblée nationale dañ koy indil texte révision constitutionnelle ba pare ñu ne ko da ngay def un vote sans débat ñu ne loolu nag mënul nekk parce que règlement intérieur bi mayuñu ko da ngeen di ñu may ñu débaat su fekkee ni débat yi minuit lay jeex ñun pare nañ ñëwaat suba pare waat nañ ñëwaat gannaaw suba ba fu mu yem après ñu soog a dem au vote loolu nañu bañ menacé ñu ne ils vont faire intervenir la gendarmerie ñun on a campé sur nos positions parce que position ñu campé c'est des positions de principe pour défendre le peuple sénégalais pour défendre la nation sénégalaise défendre la démocratie défendre l'état de droit parce que gis nañu euh, proposition de loi constitutionnelle boobu lépp loo xam ne constitution la lépp loo xam ne code électoral la mu ngi koy violé te loolu tamit mënuñu ko seetaan en tant que représentant du peuple fa nañu jëlee la malheureuse décision dugal fa GIGN ak gendarmerie expulser député opposition bi particulièrement les député du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi expulser leen de manière violente de manière brutale en violant la constitution en violant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale te loolu le président de l'Assemblée nationale moo jël responsabilité malheureusement euh, Amadou Mame Diop il faut le nommer en complicité avec le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar et le groupe euh, euh Liberté Démocratie et Changement tere ñu ñu participer au vote ñëpp di ko seetaan àddina yëpp di ko seetaan parmi certains députés sama collègue bi Ismaïla Diallo il a été violemment tabassé par des gendarmes brutaliser yeneen député yi jigéen ñi mag ñi ñu brutaliser leen ñenn ñi ñu séquestrer leen man dañ ma séquestrer pendant plusieurs minutes dans un loo xam ne genre cellule la woon pour ñu empêcher participer ñu au vote et dans ces conditions ñu bëgg ne sa vote là est démocratique ce vote là est légal ce vote là est légitime nga xam ne loolu dara jaaru ci yoon non seulement ils ont violé la